màggal gi moo di ndigal lenn nu lu fi waxal boppam te daa ko digal murid yi koy gëmate màggal gi moo di ndigal ay waa lenn nu lu mu fi waxal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 tey ñëw fii ci kër euh, Serigne Fallou Dieng ak euh, ki nga xamante ni mooy Serigne Moustahim Mbacke di direct sët Serigne Touba Mbacke radiallahu taala anhu bokk si waa Kër Maam Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ñëwoon ay don yoo xamante ni dañ leen koo jox don bi nga xamante ni Wally Seck moo ko fi indi pour euh, ñu jox ko ñi nga xamante ñoo nekk ci biir Touba mu nekk initiative bu am solo ba incha allah la ñu fas yéene waxtaan ak ñoom rek pour wax leen ba relation la ñu am ak Wally lu rëy lii ci biir Touba ginnaaw boobu dañuy nuyu nga xamante ni ñoo nekk fi ba pare waaleykum salaam wa rahmatulah. ziar naa la. ñoo ngi leen di ziar yaay Fall. tur bi naka la. waaw man Moustapha Loum laa tudd. waaw man Baye Fall laa. taalibe sëñ Sari Khalifa Fall bu sëñ Amdi Khalifa Fall waaw ànd ak sama wóolal yi bu sëñ Fallou Dieng ak sëñ Moustahine Mbacke ak sëñ Ifada waaw ñoom ñoom laa àndal mooy ñoom laa ñu certifié seen dal la maa ngi paaleen waaw di ma mën a wax daal waale daal ab Baye Fall la Cheikh Ibrahima Fall moo ñu boole moom donc ku ñu boole Cheikh Ibrahima boole la ñu nangu li ñuy def nii yëpp daal nee naa ko yoon la boo xam ne mu ngi si yoon bi rek eggagul day tàmbali rek parce que yoonu sëñ Tuubaa da mos a egg waaw yoonu sëñ Tuubaa yéene la ak Pastef la te yéene googu ak Pastef googu mu ngi si moom waaw donc dañu mën di ko ñaanal si yoon bi mu nekk suñu borom taxaw ko si barke Sëriñ Tuubaa si doole Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sëñ bi naa def ay sant yàlla bu baax noo tudd Moustapha Diagne Ifada noo gis ni Wally Seck def ci don yi nga xamante ni moom la ñu defee waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadin al makin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزيد براي السلام عليكم ورحمة الله بوك سنغال نيغ لين نيو دي لين شار تي ويرو تيد وي ني نيك دي سفر راوتي بيس بي ني دغمل دي فك فنك جروم نيت تي ويرو سفر ليغا نيو لاج جيم جوجو دي والي سيك لين تي مانا سيدي موي اك طالبي تا موي لي سيد محمد الفاضل واخون ني اك طالبي رك موي لي ام سولو daa am benn naar bu mës a ñëw ci moom ñu ko Mbàkke day jaamu yàlla mënta ñàkk sëñ Fall ni ko ci ku bëgg àjjana mu ne ko liggéey day mënta ñàkk sëñ Fall ni ko ci ku bëgg tiraangay àdduna mu ne ko xam-xam day mënta ñàkk sëñ Fall ni ko ci ku bëgg a deñ ak réer mu noppi waaye sëñ Fall ni ko loolu day doyut naar bi jaaxle lool ni ko Mbàkke ana luy doy bu jaamu yàlla ba am àjjana mën a am àjjana mën a deñu réer ci xam-xam mën a am teraangay àdduna sëñ Fallou ni ko boo jaamu woon yàlla bay dem aras ak ñëw te àndut ay yar ak i teggin mënees na laa booleeg sa jaamu yàlla googu toroxal boo jàngoon ba naw lef te àndut ak ay yar ak i teggin mënees na laa booleeg sa xam-xam boobu toroxal boo liggéeyoon ba ëpp ñëpp alal te àndut ay yar ak i teggin mënees na laa booleeg sa alal jooju toroxal li doy daal mooy yar ak i teggin te buñ ko doon tekki dañ naan mooy ak taalibe bi waali nag ak taalibe lañ xam ci moom muy taalibe boo xam nii kóllëre gi ñu seq ak moom sëriñ Touba ko fas te la suñ Touba fas du ko ba àjjana alxuraan nag day wax ne xal ci jisaawul ihsaan ilal ihsaan lu rafet lu rafet rek koy fay donte ndakaaru la jóge fii këram la waaye nag comme gan la ci ñun su see dañuy bàyyi mbooleem lu ñu nekkoon ndax sëriñ Touba loolu la ñuy sant mooy gan des koy teral lépp lu mu nekk ñu nekkal ko ca te xam ne loolu lañ ñu boolee sëñ Bay Jaxare da daan wax ni xaritay ki bokk xaritay ki nga xam ne yéen a bokkub xol seeni xel yi di benn seeni jëf yi benn muy sab caabi ngay gaalam bu jógee ndakaaru ba fii ñëw dalut ci kenn ku dul sëriñ Fàllu mii nga xam ne sët la sëriñ Baara ak sëriñ Mustaxin Mbàkke moom sëriñ Abdou Xadim Baara wax dëgg yàlla ñu nit liñ man mooy ànd ak moom tàmbali benn ba fam yem waaye li ñuy seede ci moom mooy wér na ma nàññ na ni rey yàlla xam na ni bu ko manoon bundu kër bu ne sant Mbàkke moo fay yeew nag xar giléem ginaar loolu rek ay li am solo sëriñ Abdou Lahad ne woon na mbay mu nangu day baax na waaye xol yu nangoo ko gën waali day mën na maa seede ci sëñ Tuubaa xolam nangul na sëñ Tuubaa nangu ko mat sëkk ñu ngi jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah tey am mbégte bu baax a baax tey di waxaat ne jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfati sëriñ Tuubaa wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëriñ Tuubaa rek lañ ko def ñoo ngi am mbégte bu baax ci bis bii nga xamante ni mooy mbégtem sëriñ Tuubaa ah, wax dëgg yàlla jëf ji ngeen gis nag ngeen jël ko léegi suñu wóllëre Waly chaque année mu ànd koog ñun diko diko def ci bisub Serigne Touba bi nga xamanteni amuñu lu dul moom kon nak ñong ko ci sante bu baax diko ñaanal suñu borom gën ko kàttanal suñu borom gën ko dolel ba lim nam ci yéene ci liggéeyal ko Serigne Touba ak njabootuk Serigne Touba gep mo àggale ko bis mi nak li rek moy li ñu ci war ndax Serigne Touba dane nak ma si le suñu borom di le ginar ba gilem wax deug yalla te sa suné ñuy gëna feñal suñu yene ci bis bi kon nak ngeen xamne ne luñ am ci aduna bis bi mo ñu ko ñoo ngi santaat Serigne Touba ba sa suné ñu man ko and ak mom muy jëf ju am solo jëf ju reey yemalé ko si ak Serigne Touba gi sax wante mbolem talibi yépp kenn ku ci nekk lam sekk ak yow ci ay teranga bu bis bi di dina feeñal yenem kon nak ñong koy ñaanal suñu borom kartonal ko dolel ko ba lim si bëgg lepp suñu borom défar ko ci ndam di leen sant yeen tamit wa vision bu baaxa baax si ñew gi yeen fi ñew def interview ñoo ngi leen si sant bu baax di ñaan Serigne Touba gën leen a kàttanal gën leen a dooleel. ni ko Serigne Moustapha waxee Serigne Moustapha mu baax mi bu sañoon buntu kër doom yi Serigne Touba yëpp la koy yeewal taalibe yëpp la koy defal jëf jooju kon jëfam ji da koy mottali sëkk yàlla na ko Serigne bi defal kàttan defal ko man gën ko defal sutura ci barakati Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Serigne bi am pay daal yàlla na ko fay ci barke fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yàlla bu ren nekk seen mujj teewaay yàlla ngeen ko yàgg a teewee yéen vision ci barakatu Cheikhul Khadim ba léegi ñu ngi fii ci kër ki nga xamante ne mooy Serigne Fallou Dieng ak Serigne Moustahim Mbacké di seet suñu Maam Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ñëw si soxna yi rek fas yéene leen laaj lan gan yi soxna si la. ah delloo ziar ñu lay ziar bu baax di la jaajëfal bu baax a baax. tur bi naka la. man Ndeye mbay laa tudd. nan ngeen accueillir gan yi nga xamante ñu ngi ñëw fii ci màggal gi. ah ñu ngi leen bu rafet. waaw ndax kër gi daal macha allah dara jeexu fi depuis mercredi ñu ngi fi toog di accueillir gan yi nag yaa ngi dee xar yaa ngi dee ginaar yaa ngi dee macha allah fa tubar fakal la firu yaa ngi ne gaañ lépp a ngi ne gaañ daal dara jeexu fi waaw sëñ Fallou nag moom dañ koy ñaan bu déwénee yàlla mën lu ko bëggul kenn jooy dara bëggul kenn manqué dara lépp a ngi ne gaañ macha allah fa tubar la waaw. ba léegi ñu ngi fii de euh, su ma su ñi xamante ñooy mbooloo mi ñëw après euh, xam ku nekk sa comportement la ñuy yor yéen boobaa nan ngeen di dundee ak ñoom. waaw ah, bu boobaa ñu dalal leen ne te xam ne sëñ Bamba moom ñëpp la boole njaboote su boobaa ñu dalal leen leen jox ñu lekk ba suur naan ba màndi waaw sant rek ndax sëñ Bamba moom jar na lu ne waaw bu ñu ñëwee rek nu ñu ñëwee rek ñu jël suñu jikko jàppee leen ko. waaw ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi kontaan si yéen tamit bu baax li ngeen def dafa rafet.